mu wax ko ci kàllaama wolof asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cheikh mouhamadul muntaxa mbakke xalif général des mourides ñoo ngi lay nuyu di la ziar yàgg sa bokki bopp yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew ak njabootu sëriñ Touba gépp ak këri seexi sëriñ Touba yi ak mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ñi fi teew ñëpp ñoo ngi leen di ziar ak ñi ko yéene woon te mënuñu ko am na sax ñu fi teew ñoo xam ne bitim réew lañu jóge kon jaral gi moo ko waral ñoo ngi nii teew tey Mbakke ci sa kanam mboolem waa Hizbut Tarqiyyah ak bokk yi ak xarit yi ak am di jàmm yi ak dëkkandoo yi ngir yeesal si sunu jaayante fedd li sunu laxasaay di la ko seereel yow mi nga xam ne tey jii yaa fi toogal Sëriñ Tuubaa li jiitu suñuy kàddu nag mooy jottali la ak cant cant googu ñu lay seereel nag bokkale nañ ko mbokki jullit yépp bokkale nañ kook mbokki taalibe yëpp bokkale nañ kook mbooleem waa réew mi dafa daj kàpp bu dee ñi ñu bokkal lislaam gi ci biir réew mi wala bitim réew muy këru diine yi ak ñi fi teewal yeneen i réew yi jullit ñoom ñëpp maase nañu seen kàddu benn la nee nañu jàppee la xalifatu yoonu murit rek waaye ñu ngi la jàppee xalifatul islaam jëpp muy amirul muuminiin bu dee ci biir yoonu murit moom bu nu yemoon rek ci kàddu yu seere ak cant yi nga xam ne mooy cant yu rëy yu bàyyikoo ci sa bokki bopp yi ñu yéene la lool sa taxawaay bi tey ñaan mu yàgg lool loolu buñ ci yemoon dana doy sëkk taxawaay boobu nag dafa maase ci taalibe yëpp maase ci jullit ñëpp li ciy dolli nag li ciy dolli ko rek mooy taxawaay boo xam ne it war nañ koo tudd ndax waa réew mi ñëpp ko ëmb ci seen xol muy réew mii sa taxawaay ràññi na fi lool rawatina ci jamonoy mbas bi say ñaan say ndimbal sa jàppale ci askan wi ba saabu seen bët naree xonq rek bu ñu geesoo gis la saa su jafe-jafe amee itam sa kàddu ak sa loxo moo koy woyafal moo koy yéwénal ba ñépp amaat jàmm bu dee noonu nag waa Hizbut Tarqiyyah sunu cant moom sunu diggante ak yow lott nañ ci ndax fi nga nu féetee naka jëkk bi daara ji sosoo ba tey fu ñu mës a toll rek ànd nga ko nun gàttanu nga nu saa su ne taxawu nga nu ci sépp saa sagal nga nu siggil nga fu ne yëkkati nga ñu itam fu ne te it mu jaral la it lu ne te loolu nag Mbàkke xam nañ ne dara waralu ko lu dul sàmm ak dëgg ak li la jaral ak défendre ak dëgg ak li mu la jaral lépp luy jëmale yoon wi kanam rek mooy sa yitte loolu mooy sa moo la soxal waaye itam danga bëgg sawarloo dongo yi ay dongo yu sóobu wan ginnaaw àdduna wan ginnaaw lépp jublu Sëriñ Tubaa bëgg koo liggéeyal te yow bëgguloo ñu taxaw bëgguloo ñu gestu bëgguloo ñu dëpp te bëgguloo itam ñu doon ay jirim ndax yaa ngi ciy liggéeyal sa maam ju tedd ji muy seexul xaddim moom mi wax ne waltu bashir biyal yataama dawaaman man siihim bii abaahum ku la hiini jërëjëf Mbàkke loolu moo tax Mbàkke noo ngi dikk di feddaliwaat suñu laxasaay gën a dëgg ma liggéey sëñ Tubaa te duñu duñu ko booleeg dara duñu dëpp duñu gestu dongo yooyu nag jubaa is bu tarxiya ñoo dikk tey teew fi sa kanam di ñaan sunu boroom mu fay la sa taxawaay boobu di la sàkkul itam mbooleem ñi mës a def ay futuxaat ci lislaam yu yàlla gërëm ba lislaam sosoo ba tey ñu ngi ñaan sunu borom mu yeesalaat seen ndam yooyu ci sa liggéey bii ba képp ku ëmboon ci xolam jooyle lislaam ngir tolluwaayu jamono wëlbatiku di ko sargal ngir sa taxawaay yëkkatiwaat nga ci kaw daare eh, raaya lislaam te dootul laal suuf incha allah bi barakatina cheikh bi barakati cheikhina alxadim cant gi nag mbàkke addiye ji mu àndal noo ngi koy noo ngi ci feddali sunu cofeel ci yow xeeb ko lool ànd ko tuub ak toroxlu ne ko sunu sang bi cheikh mamadul moustapha mbakke waxe woon sëriñ bi ci bataaxalam boobee tubtu ilayka tawbata abdin zalimin laa yamliku li nafsihi nafan wala darran addiye la ci boole woon joo xam ne itam xeeb ko tax na daf ko junj rekk ngir teggi ni taalibe wax ne waxat ja'altu fi yadil xaamili maa fi sóoratil qadri nun itam mbàkke ngir aw ci tànk yooyu di ci jéem rekk nu ngi lay jébbal limu jiimun su ma yaa bax dahuma muhmalu siine moom la ñuy barkeloo ci ay millions muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett xeeb ko lool nag Mbàkke di tuub tey jéggalu li nu suñu jëwriñ ji sëriñ aatu kàddu ya mu la waxoon rek lay yeesalaat yal na yàlla suñu borom dolli ko yërmande dolli ko njëggal te gàttandu ko ci ngërëmal sëriñ Tuubaa ba mu la jébbalee ci suñu ziar bi mujj 19 février 2019 addiye ja muy ñaari téeméeri million daf cee tegoon ay kàddu ne Mbàkke noo ngi dem waaye noo ngi dellusi si fu nu yem loolu rek dañuy feddliwaat tey noo ngi demaat waaye incha allah noo ngi dellu siwaat balaa yàgg sëriñ aatu moomu nag waa Hizbut Tarqiyyah gépp ak bokki boppam yi ak bokki taalibe yi ameel nañ la ak cant goo xamante ne ci sa taxawaay ci moom lott nañ ci ak seere yi ñu ko seere te yow yaay sëñ Tuubaa rafet loolu ñu jort yóbbu nañ sax ci yàqin ci lépp ci mbiram ak ci sunu mbir sax jërëjëf Mbàkke jëf ji nag dina baax rek ñu teqantal ko ba mu leer la nañ ndax lépp sa alal la yàqu moom tegal deux cent soixante douze mille neuf loolu dañ ko booleeg lële moo indi limu ñetti téeméer ak fukk ñett waaye ngir wane ne loolu dañ koy barkeeloo waaye yemuñu fa ndax fii ñu toog rek li fi dajawaat mët na juróomi million te duñu arrêté lépp nañ ko booleeg at yi jox la ko Mbàkke li ci topp mooy mboole mi daje tey jii nag Mbàkke dama jublu rek seere leen ndax ay boroomi pas-pas yoo xam ne li ñu àndee weesuwut pëstéef ak soññante ci ak jub ak liggéeyal sëriñ bi ku ci ne royukaay nga ci sa morom noo ngi ciy sant sëriñ bi ah, ndax moo na ko fàggul mën nañ ko misaal rek sax ci jataay bi ci li mu wax ne lakkaru joon yi maal jumuhi bi xayri joon yi wala xataay loolu sëñ Tuubaa ni ko defal moo waral ñi fi teew ñëpp ak ñi ki fi yéene a teew te mënuñu ko ñoo ngi leen di sàkkul ci sa barke ak ci sa caabi bopp yi nga xam ne Serigne tubaab teg na ko ci sa loxo nga tëjal leen seen bunti njàqare yëpp te ubbil leen seen bunti xéewal yëpp tey ak ëllëg rafet nañ ci njor Mbàkke ñoo lay sant waaye mënuñoo daaneel te jotul wu ñu yóbbante boo xam ne mu ngi bàyyikoo ci soxna yi yi nga xam ne ñoo ne ci mbooloo mi ak tuut tànk yi bu dee soxna yi nee nañ sam sañu ñoo yëkkati seen kàddu ngir teggine lislaam waaye ñi ngi lay sant ndax gën nga leen gindi ci sëriñ Tuubaa ba amatuñu jënn yitte lu dul tënku ci ak taalibe nangu kilifteef jàng seen diine ba xam ko góor góorgóorlu ci jaamu yàlla nangoo topp seen borom kër nangoo sonn ci yar seen njaboot ci lislaam akuk taalibe nangoo joxe seen alal ci yoonu yàlla wan ginnaaw puukare àdduna yépp ci gàttal nee nañu ñoo ngi fas yéene def seen royukaay muy soxna jaaratullahi Buso bu dee xale yi nag ñoom nee nañu ñoom dalal nga seen xel ndax sa naal bi gën a rëy ci jamono jii ñoom nga ko jagleel muy daara ju mag jii ñuy xayma ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar te xam nañ ne sax dina ko ëpp waaye ak fu mu mën a yegg incha allah loo ci yóotu sëñ Tuubaa dina la ko defal ñoo ngi lay sant di la gërëm di beral ak cant sa bokki bopp yépp tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh Mamadou Bachir mii ibnu Cheikh Abdou Khader mi yor sa kàddu liggéey ñu booleeg moom yépp taxawaay bëgg na rafet la ci taxaw kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm njabootu sëñ Touba gépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm taxawaay bi benn la di la xamal ne nag liggéeyu këru xaside yi noo ngi ci bu baax taxawul senn saa ñoo ngi ci dajeeg saa su ne tew feexi sëriñ bi bu baax a baax di sàkku nag Mbàkke nga dolli ci ñaanal rek ñu yeggale ko balaa yàgg ñu jébbal la caabi yi ko sunu jëwriñ ja waxee woon ne la jébbal la caabi ji balaa yàgg incha allah loolu moom laa ci doon dolli la ca tegee dafa am nag Mbàkke lu may yalwaan am ci ndigal muy sama kàddu yu bopp yoo xam ne mënuma koo ñàkk jot jottali ndax ëmb gu ma ko ëmb ci sama xol ginnaaw yàlla dafa dogal euh, du lu ma yeyoo waaye ci sa barke dina ma ñoddi ba incha allah liggéey bi duma ma ci yàq dara loolu ci sa barke laa koy amee ndax sama dara daf maa doyut waaye sa lépp daf maa doy sama kàddu yu bopp yooyu mooy ziar bii ci lay tàmbalee ak liggéeyu koor gi nga xam ne lislaam gépp kañ lañ la ci sa ndami bopp la bokk ak këru xasida yi gii nga xamante ne ñu ngi koy liggéey te ñi nga tànn ñu yor liggéeyu université bi ñëw nañ fa ñëwati fa saa su ne ñu ngi fay ñëw waaye wax nañ ne bokk na ci liggéey yi gën a dal seen xel ci biir liggéeyu université bi ndax sàmmoonte gu mu sàmmonteeg réew yi àdduna yëpp ni ñu sàmm ni ñu sartalee wàllu tabax gën koo xemmeem ci wàllu tabax gis nañ ko foofu ci liggéey boobu loolu kon yaa ñu ko defal war nañ cee sant waaye ni liggéey daara ji doxee te dara demul dara des man dama ci seet loo xam seetlu loo xam ne faw ma seere ko ci sa kanam muy daara yi muy école yi muy tool yi muy tabax yi muy jur gi muy machine yi muy woto yi muy télévision yi rajo yi ba ci xeeti xarala yi nga xam ne day xamle sëñ Tuubaa àdduna sépp di ko xamandoo lépp dama seetlu ne mi ngi doxee noo xamante ne dama am lu ma ci seetlu bëgg koo waxtaanee ak mbooleem ñi ma bokkal liggéey bi ñu bokk xam ko ndax moo ñuy dimbali sàmmal ñu suñu Pastef mooy ñu xam ne Serigne Touba kenn féetewu ko fenn kenn mënu koo defal lenn daf ñoo dimbali dong suñu ngóora ak suñu yitte ak suñu mën-mën mënu ko lii dañ ko war a seere ci sa kanam xam nañ ne kon moo ñu dimbali ba ñu mën koo def lii daal Mbàkke lañ na woon